wax happy birthday to you dama ci sonn euh. benn anniversaire bu ma gën marqué ci samay anniversaire mhm. benn femme ma nga romb ci oto yor 4 4 euh. maa ngi nage mhm. ça va baax ma oui ça va bien mu sama doom ji laa bëggoon nga defal ma ko happy birthday to you ma ne ko oh soxna si man damaa nekk tournage xam nga man su ma xiifee du ma wax damaa ragal xiif ma ne xaar ma defal ko rek mu ne ma jàpp ci rek dalaa bëgg soxna si taal téléphone bi ma ñàngal dana xapp bës day tuuyu booy bi yàlla na gudd fan yàlla na ko yàlla defal jàmm ok bége yaa jëma merci lii rek dana génn benn takk cent mille jox ma ma ko ñaar fukki junni soxna dañ koy defaat damaa jur ci <laughs> ma ne ko happy birthday to you borom yaay ju baax ji yaa baax yaay yaa baax bàyyi happy birthday afia dundal ba découragé dundal ba naan yàlla persel ma rappelé yaa ji ne ma eh, doy na yamale ko foofu ma ne ko du ma ko fi yamale ndax damaa defal teranga damaa waxtaan